Akbar! Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina imamillahi mahdi alaihi salatu wassalam Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh lay eh, oh. ni ñu ni eh, di leen euh ñu fasiyene yéene waxtaan rek ci moy bu am solo boo xamni amana du faral di xoss lu bari muy eh, ñangalem seen alimaamu alayhi salatu wassalam que, que, que benen facette dañ ci jël prétexte rek ci waykat ba dafa ni téré ko digle moom la ndjol ma doore waaye prétexte biñ ci jëla tamit ci ci hadith yi moy dafa ñëw ci alaamaat yi nga xamni bokku na ci sayyidina Limaam Mahdi alayhi salatu wassalam ci xam ci annonce yi nga xam ni defoon nañ ko ne max Mahmahdi yu bu ñëwee dina enclenché benn guerre d'ailleurs loolu bokk na ci sax li tax am na ñu bari ñoo xam ni ci seen euh, subconscience dañoo jàpp ni limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam bu ñëwee moo leen war a délivrer ci américain yi américain yi nga xam ni ñoom ñoo domine le monde fi ñu toll ñu ci bari ñu ngi xaar limaamul Mahdi bi boo xam ne bu ñëwee chef de guerre lay nekk ba ci guerre boobu sax bu ñëwee yonent yàlla ngi Isaa bu ñëwee la koy fekk ci guerre googu fekk ko mu yoree jaasi et cetera bu ñëwee dina ko jàppale ci guerre bi et cetera loolu ñu wax ni nag limaamul Mahdi yu bu ñëwee dina enclencher benn guerre c'est la réalité le problème kay mooy ban guerre lay enclencher te Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam moo ñu jox réponse bi ndax li may faral di wax nit boo koy boo koy waxal dang li gën a wóor mooy nga tontul ko mooy nga jottalil ko tontu bi mu joxe ndax Seydina Limaamu moo wax ci xutba bi ba mu waxee ni antum kuntum fi manaazilil awwaliin ba pare daal di décrire ni nga xamee ni gaa yu njëkk ya noonu la loolu la leen yàlla santoon mooy jixaat armée jixaat ak seen ay Euh, saabu rek seen ay arm ci seen signalement mu geestu xool saxaaba yi ne yéen nag digal luñ leen lool liñ leen digal mooy jihaadu nas kon nekkate guerre bi nga xam ne ci Seydina mu alayhi salaatu wasalaam mu ngi koy enclenché jihaadu nafs la la tudd jihaadu nafs nag moom lañ tuddee la grande guerre am na sax ñuy utiliser superlatif bi di ko tuddee jihaadul akbar maanaam la plus grande guerre jihaadu akbar bobu li tax ñu tuddé ko ko mom moy xex dina neex a comprendre moy xex ak sa bakan xex ak sa bop mo gëna metti xex ak keneen boko bëggé xam rek jëlal coup bi nga xamni yang koy door sa morom tono giñ ci ciy daj boo jëwoon coup bobu door ko sa bop tono bu ko quadruplé nga ci daj kon xeex ak sa bopp moo gën a metti xeex ak keneen te déjà ça demande beaucoup plus de courage que nga xeex ak keneen moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam tuddee woon euh, jixaadu armée bi jixaad ju ju ndaw ji tuddee bi jixaad ju mag ji jixaadu nafs boobu nag nga xam ni mooy xeex ak sa bopp ñu koy faral di firee xeex ak sa bakkan te man ma taamu ma taamu ko firee xeex ak sa bopp mooy li nga xam ni moom mooy guerre bi nga xam ni moom moom la Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam enclenché mu ko enclanché nag analyse bi ma ci def c'est une analyse propre parce que ça nangage que moi en tant que intellectuel qui s'assume et chercheur pour man guerre Seydina Limaamu boobu ci ñetti front la ko teg ci ñetti front la teg guerre bi nga xam ni mooy jihaadu nafs boobu muy guerre bi mu war a def ngir remplir mission bi nga xamni khalis ba mo waxone yamlaul ardan adlan wa khisan kama ad jawran wa zulman eh, ba ba muy wax nan bu deson ben fan ci kaw suuf eh, dina yalla dina yabal gor go xamni ata wallahu zalika al yawm xataa fihi rajulun min ahli bayti yamlaul ardan adlan wa khisan kama ad jawran wa zulman ndare ñu yabal góor goo xam ni dina feesal suuf si maanute ak njub naka mu feesee woon ci ndëngte ak ñaawteef loolu nag dalay fàttali te lañ waxoon uh, lañ waxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa in kaanu min xabl la fi dalaalin mubin toujours noonu lay deme yàlla toujours day yebal koo xam ni day ñëw fekk suuf su dee mu mu dundal ko hmm? uh, ahyay nal arda wala mu ñëw fekk euh, ñoo xam ni dañoo nekkoon ci réer mu mu jubal leen te en réalité sax ñaar yooyu yëpp dañuy euh, dañ leen di dañuy mën a daje ci fen ndax laa ilaaha illallah mooy baat bi nga xam ni moom lañ jox yonent yëpp na ma ko waxee woon yeneen numéro yi yu weesu hmm? illaa nuuxi ilayhi annahu laa ilaaha illaa ana fa'buduni mooy baat bi nga xam ne ñëpp moom lañ leen jox yonent yonent yëpp mais mooy baat bi nga xam ne tamit mooy dundal suuf su dee woon mu ñëw dekkal ko laa ilaaha illallah ci la xol di dundee mooy jubal nit ñi ndax ci dundal xol googu lay ilaaha illallah di dundalee xol yi bi zikrillaahi eh, ala bi zikrillaahi tatmainul xulub eh, ci ci tudd yàlla ci la xol di dale sikar la xol di dundee ba moo tax ku dul sikar bu yàggee xolam wow mel ni aw dog ca daaraay ba noonu la loolu la woykat ba waxoon waaye bref bu ñu duggee foofu li ma soxal en réalité mooy ñetti front yi yi nga xam ne Seydina Limaam Mahdi yu alayhi salaatu wasalaam jàpp naa ni moom la ubbi bi mu indee geeram boobu ngir mën a réussir mission bi ma wax ni mooy yamlawul arda adlan wa xisan kama muliyat jawran wa zulman muy peesal àddina si njub ak maanute loolu nag bi ko Seydina moo di réussir dafa nekk loo xam ne mission boo xam ni nekkul mission bu bees en réalité ce sont juste les termes qui changent ndax yont bi sax ñaanoon na ko rabbana atina fi dunia xasana wa fil axirati xasana ndax bu mission boobu réussiree ñaan googu yont bi ñaanoon dafay nangu moo tax yàlla jox ko mission boobu mission wu guidance alhaadi almahdi euh, yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñaan googu mu ñaanoon ni yàlla defal ma la salut ici-bas et ma am mucc am li ñuy tuddee bonheur fii ci àddina ak ci àllaaxira loolu guerre bi seydina limaam alayhi salaatu wasalaam enclenché kay seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax ñu mën a am résultat boobu ñetti front yi mu ubbi nag c'est le front personnel c'est le front sociétal c'est le front économique ci man jàngat bi bi ma ci am le front personnel mooy ñëpp xam nañ ni dañoo dañoo am na fi ay temps boo toppee doctrine économique yi wala nga topp doctrine politique yi da nga ngay gis ne au début l'homme moo nekkoon au walaxat karam naa ba ni aadam biñ demee nag ba bëgg a génne yàlla ci mbir mi jël science gi dégg nañ fi Dieu est dégg nañ fi euh, lu nekk ci positiviste yeeg yooyu waaye gis nañ ne dañoo jël nit jële ko place am central bi mu amoon nga xam ni yàlla moo ko jox daa di jël leneen teg ko loolu nag biñ demee ba ba xam ne doxul ci lañ delluwaat parce que boo xoolee buñ jëloon euh, économie rek di di nga di nga gis ni biñ jëlee croissance économique def ko mesure dañoo dem ba ci biir xam ni mënuñoo jël euh, benn chose lu lu mel ni croissance économique rek bëgg ko def mesure te duñ ko nattarle ci ki nga xam ni fa la jëm muy nit nit kooku ñu jël ko dugalaale ko ci biñ ko ci dugalee ci leen indi lu mel ni ay IDH indice de développement humain parce que ñu ngi dugal ñu ngi jëlaat nit mi nga xam ne bedd woon nañ ko di ko dugalaat biñ jëlee indice de développement humain dem ba ci biir daal ne nit waaw waaye foog ñeneen mbindeef yi ñu boole leen ci wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin moo tax Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam nekk loolu modèle parfait uswatun xasana nga gis ne jël nañ nit nit waaye pa nit kese foog ñu dugal yi yeneen mbindeef yi ci lañ indee lu mel ni développement durable développement durable non seulement ñu indi euh, euh, le domaine écologique mais également xool xool aussi génération future yi ñu leen di bàyyile ñu leen di sóoraale kon nga gis ne jóge nañ ci développement durable ba léegi ñu ngi avancé ci lay ñëwee lu ci mel ni développement personnel développement personnel moom mooy illustrer la de la meilleure des manières li nga xam ni mooy nit place centrale bi nga xam ni moom la ko yàlla jox wala xat na naa bani adam maa ngi koy répété kon nga gis ne seen aliment moom moom dès le départ comprendre na ni ndax yàlla moo ko xamal que nit moom mooy occuper sa fonction première moom mooy occuper place centrale bi ndax moom mooy xalifatullahi fil ard inni jaayilun fil ardi xalifa kon kooku nga xam ni yàlla moo ko moo ko jox responsabilité wu mu doxal àddina te ñu écarté woon ko dem ba ci biir xam ni euh, écarté nit du tax mu dem ñu daal di koy indiwaat seen Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam moom dès le départ xamoon na ni nit kooku foog ñu jox ko sa place central moo tax mu jiitu ci nit ñi moo tax ma tuddee Seny Alimaamou le meilleur coach en développement personnel puisque bu ñu desee ci domaine boobu dinañu xam ni le fait que mu nekk euh, le meilleur modèle alxuraan tuddee ko ko uswatun xasana kon moom mooy ki nga xam ni moom lañu mën a mën a roy de la pédagogie par exemple moom mooy la meilleure des pédagogies motax tax al imam alayhi wa wasalaam waxol ni lepp lo xamni ne digal naa ko ci def wala wax ju rafet jiitu jiitu na len ci te du ngeen ma ci dab comme mom xamal nañu ni la pédagogie par l'exemple mom moy méthode am développement personnel bobu nga xamni nak mom la seen imam alayhi def ci wa këram ba nga xamni dinañ nekk des citoyens du monde dinañ mën a nekk des modèles ci bépp jikko boo xam ne jikko bu rafet lay doon dafa am ay euh, élément am ay jumtukaay yoo xam ni moom la utiliser pour mën a réussir lool loolu nag da ngay boo demee ci xutba bi di nga ci gis yoo xam ni di nga xam ni yii Seydina Limaamu utiliser na ko pour mën a réussir yar bi nga la a yar nit ba un modèle ci société bi un modèle d'homme euh, aspirant à la perfection c'est ci euh, le positivisme psychologique le positivisme psychologique mooy li développement personnel, la confiance en soi ou l'estime de soi boo demee en psychologie dañ koy tuddee euh, être positiviste maanaam mm, toujours nga nga optimiste au lieu que nga pessimiste positivisme bobu boobu nag bokkul dara ak euh, doctrine positiviste yi nga xamni ñom ñoom Comte Auguste Comte ak yoy yooyu noonu moom lañu am wala en psychologie ñu tuddee courant positiviste yi mais en réalité mu ngi basé wu ci wax ji Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam wax ni wajtani bu an zanni son yi inna allaha inna zanni abdihi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam moo wax ni moytu leen njott lu ñaaw ndax yàlla mu ngi ci njottal jaamam kon kooku mu ngi tere ñu pessimiste Seydina Limaamu nee na moytu leen pessimisme ndax yàlla lépp li ngeen njort rek daf ciy ànd ak yéen kon bu fekkee dañoo optimiste bu ñu amee njortul rafet yàlla dafay ànd ak ñun ci njortul lu rafet lool kon le fekk ñu pessimiste ñu mu digal ñu ñu optimiste mu ñuy digal pour ñuy positiviser suñuy suñuy euh, entre guillemets suñuy jëflanteel suñuy jëf suñuy mbir ci lépp loo xam ne ñu ngi ciy dox bu fekkee ni nag yàlla ci boppam mu ngi ci njortal jaamam bi maanaam yàlla lépp li nga xam ni njort nga ko ci sa bopp rek parce que njort ci sa bopp la la tàmbalee bay ci say weew tànk avant bu fekkee dañoo bëgg a jàpp ni waccani bu anzanni son yi dañ ko bëgg a dañ ko bëgg a jàpp ci njort li ñuy am ci suñu mbokkum jullit wala ci suñu mbokkum nit te fàtte ni njort li ñuy am suñu bopp moo jiitu dañuy dañuy jël dañuy am benn euh, conception partielle bu wax bi ndax wax ji njort li yamul rek ci njort li ñuy am ci keneen mais dafay tàmbalee ci njort li ñu am ci suñu bopp moo tax wattani bu an yi inda allah inda zanni abdihi ma tuddee ko le positivisme psychologique kon nañu moytu njort lu ñaaw foo la seen aliment mu tàmbalee ci defar gi nga xam ni mu ñu koy defar ngir ñu nekk ñoo xam ni dañuy bég sensation hamni nekk ñu nekk ñoo xam dañuy sant ndax bu fekkee da ngaa optimiste da ngay sant walxamdu nag arban moom la euh, ki nga xam ni mooy baabul murid yi na indi ci jësbul murid xadisun lil xadis xadimun lil xadim xadisun lil xadim xadimun lil xadis mu ne ñoo ñëpp nag muy cant gi yàlla di sant euh, nit sant gi yàlla di sant boppam ni nit di sant moroomu nitam ak ni nit di sant yàlla sant gi yàlla di sant nit ka neexmal abdu inahu awaab eh, sant gi yàlla di sant boppam ni muy waxee alhamdulilahi lazi xalqa samawati wal ard alhamdulilahi lazi fatiri samawati wal ard et cetera sant gi ñuy santante suñu bopp nga xam ni suñu diggante nga xam ni nit da lay defal dara nga sant ko ak eh, sant gi nga xam ni nit moo koy sant yàlla ni nga xamee ni saa yu ñu jullit nit dinañ tari fatiha wax alhamdulilah rabil alamin te seen alimaam alayhi salaatu wasalaam digal ñu ñuy def alhamdulilah rabil alamin téeméer yoon chaque bu ñu euh, jullee ci tasab bi kon nga gis ne positivisme boobu déjà base la ci defar bi muy bi mu bëgg a defaree nit maa ngi ba léegi ci le front personnel mu teg ci lan le culte du du détachement le culte du détachement mooy Euh, xam ni lépp lu yàlla indi rek lépp lu nekk ci àddina rek yàlla moo ko gën bi maanaam wuti yàlla moo gën wuti àddina lépp loo xam ni àddina la wax di ñuy wax da koy askanale Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam walaahu alam ne waxoon ni coowandoo lee nag waa àddina waaye bu mu àgg ci seen xol maanaam nañuy fexe ba li nga xam ni moom la jëfee ci xutba moom la wax ci xutba bi daal di ne inna dunia jiifatun àdduna medd la mu ne medd nag du ko lekk lu xaj yi ak tan yi moo tax àddina bu ñëwee liñ fi war a soxal moom mooy lu ñu am loo xam ni dinañ ci mën a suturloo mën cee jaamoo yàlla bu ñu amee ay milliards tamit milliards yooyu mu nekk loo xam ni lu ñuy jaamoo yàlla lay doon mais mu bañ a nekk loo xam ni alxaakumu takaasur xataa zurtumul maxaabir hmm? wax na ca ci xutba bi ni wala takaasaru maala dunia wala takaasaru xayral xayral kon yooyu mu nekk yooyu loo xam ni deuxième point bi muy le culte du du détachement détachement par rapport ak lan par rapport au plaisir mondain par rapport ak euh, euh, li nga xam ni mooy àddina beeg li nekk ci biir lool nag c'est un idéal boo xam ni c'est pas parce que ki ki koy wax mu ngi koy def muy man mii di wax ak yéen mais idéal la boo xam ni ñu ñëpp dañ ci war a góorgóorlu di ko di ci tendre li imam Saxiir waxoon mais bul di xool euh,

troisième point bi nga xam ni ci la defaree nit da nga xam ni moom moo tëj front boobu muy euh, li ñuy tuddee la reproduction sociale en psychologie boo demee ci en psychanalyse dañuy wax ni euh, tout enfant dafay da dafay am euh, benn dafay am benn facilité pour reproduire l'environnement euh, de sa maison familiale te ji nii nit ki ni mu ni mu ni mu euh, l'environnement de son enfance dafay nekk loo lo xamni bu démé ba nek mak inconsciemment daf koy reproduire loolu loolu nak boko boko transférer. transféré ci liñuy tuddé sociologie mo lay jox reproduction sociale donc en réalité reproduction sociale nekul ludul résultat wu euh, li nga xam ni moom mooy processus bi bi di am ci xale bi nga xam ni ci environnement bi màggee bu nekkee mag loolu dafay ancré wu ci moom ba nga xam ni daf koy bëgg a reproduire moo tax seen aliment mu waxoon ni moo tax waykat ba wax ni farloo ko dem jàkk fàttee toppatoo ndaw ndax seen aliment mu loolu indi mu digle ñuy xarfal xale yi Euh, à bas ñuy maye xale yi à ñu leen di yóbbu ci jàkka yi à bas ñu ñu leen di xiirtal ci jaamu yàlla di leen sikarloo à bas parce que xam na ni seen environnement boobu nga xam ne ci la ñuy màggee buñ demee après mooy indiwaat li ñuy tuddee reproduction sociale ba ba nga xam ni façon ñi ñooñu boo defaree mag ñi mag ñi defar xale yi xale yi buñ màggee ñoom ñooy defaraat yeneen xale yi loolu cëslaay yi ci ci euh, xutba bi mooy bi seenaali maamu fonk gi mu fonk xale tax na ba mu nga naan wa aussi kum bil iyaali maa ngi leen di dénk njaboot gi njaboot googu mu ñu dénk mu nekk front le front euh, social le front personnel nga xam ni moo ko tënkee def na ko ci ñett le positivisme psychologique le culte du du détachement def ko également qu'il la reproduction sociale positive la reproduction sociale positive mooy fexe ba yow mi parent bi defar gi la defar valeur yi nga am nga fexe transmettre ko de génération en génération nga xam ni euh, euh, point ba nga ba nga xam te développement durable nga xam ni moom lañ tuddee euh, ressources yi ñu am ni mën ko gérer d'une manière efficiente ba nga xam ni dinañ ko mën a transmettre les générations futures ñu pexe ba transmission boobu mu bañ a yem ci ay ressources naturelles lu ci mel ni ay pétrole ak ay euh, gàncax ak yooyu mais mu nekk transmission boo xam ni valeurs yi dañ ciy am place bu prépondérante loolu mooy li nga xam ni seen aliment mu jàngale na ko ci front personnel boobu kon euh, wasalaatu wasalaamu ala rasulillah am ci kii ci numéro bi ci topp incha allah ñu dugg ci yeneen front yi nga xam ni mooy front social bi wala wala front sociétal bi ak euh, front économique bi incha allah ngir jàngat suñu point de vue bi nga xam ni am nañ ko ci guerre boobu nga xam ni Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ubbi na ko te am benn arme muy la ilaha illallah guerre bi tudd jihaadu nafs te guerre boobu nekk guerre boo xam ni moo defar nit d'un point de vue personnel war a dara war a defar société bi waaye war a defar économie bi ba ba nga xam ni nit ñi dinañ am lu ñu suturloo mais dinañ ko mën a def ci yoonu yàlla waaxiru daawana alhamdulillahi rabbil alamin أفن موقعي أنا مرجان